ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ay Sénégal fu ñu jël foo làmb muy métti si di quotidien li ñu xamale nga xam ne kuréelu jàngalekat xam ne rek ñoo nekk e koy jànkoonte tey nag jamono ji lii nga xam ne daal ay lenteur xam am na ci seen ak diggante yéene gi duñu xamale waaye yemuñu ca ay rappel yoo xam ne itam waroon leen ko waaye tamit ak déggoo goo xam daal danañu def loxo di Sud Quotidien di ñu ak lu mën xew daal Ibrahima Sarr mii nga xam ne dañu koy amal moo la ndaje ñu cee waxtaan lu bëri bokk na ci ay garab yu bon yoo xam ne itam danañ ko lijjanti te mbir moom yéene kaay gi du ñu moom njiitu réew mi Macky Sall du ca yam ndax gannaaw bu jógee foofee nga xam ne rek moo di Togo dina dem fi nga xam ne rek moo di Grande-Bretagne jàll ba Suisse ak tukki liggéey la goo xam ne maanaam daal fukki fan juróom-benn ci weer yu ñu nekk ba ñaar fukki fan ñaar njiitu réew mi dina ko amal ca jamono jojee Le Quotidien duñu xamal ne leneen loo xam ne rek ak jafe-jafe la goo xam ne njiitu réew mi Macky Sall war na cee taxaw yéene bi duñu xamal ne lépp loo xam ne rek jëm ne ci wàllu ECO googee ñoom daal ànduñu ni mel ak yeneeni réew ba muy juróom benn laas yéen i kaay du nag nekk koy lijjantee leneen loo xam ne boo moytuwul bu ñu ko lijjantiwul ay jafe-jafe dina ci am bi di wax ci bopp li du ñu xamal ne moo di bi nga xam ne dañu ko bëgg a yokk ci li nga xam ne mooy jóge biti réew yéen i kaay gi du nag boo moytuwul nag li nga xam ne moo di askan wi ñoo ci nar ndax prix yi koy yokkati laa wax waaye ana tournée économique yo fan la mujj jamono joojee leneen loo xam ne kenn xamul kaay bi du ñu xamal ay jëm na ci dialogue national bii nga xam ne que tàmbali nañ ko ci réewum Sénégal ji ñaareelu pàcc ba ñanga ca yéene kaay gi du ñu xamal ne waxtaan goo xam ne nag daanaka waxtaanu réeroo ndax am na ñenn ñoo xam ne rek ñi nga nekk ci kujéeg Sénégal dañoo gedd neewa ki xam ne moo di Idriss Seck mu réew mi ak ki xam ne rek moo di Ousmane Sonko moom Sonko yëkkati na ko nee daal boobale dialogue waxtaan la goo xam ne maanaam daal dañu fay séddoo xaalis lu waaye neex def yu caaxaan yooyu moom Ousmane Sonko nekku je Ibrahim Seck kee ci forum civil moom itam yëkkati kàddu daal di xam ne nag dialogue national bi bëri na ñoo xam ne ña ngay dem ca dialogue national jafe fekk ko ci l'observateur keneen koo xam ne ay jaar-jaaram boo moytul dina taq suuf la tribune yéene kaay di ñu xamal mooy ki nga xam ne rek moo di Tahibou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite woon kaddas jamono ji nag amul dëgg noonu la demee daanee ko xibaar bu doy waat bi nga xam rek moo nekk ci les échos yéene kaay di ñu xamal ne Kumba soxna la goo xam ne daal gannaaw ba mu tàggoo ñi nga xam ne rek ñeen seen waa kër jógee ngir dem fi nga xam ne rek moo di hôpital yéene gi duñu xamal ne moom kay gannaaw ba mu demee ba léegi kenn gisu ko mu ne fes na mes na menteñ moom daal mu wooyee seen waa nag la mu leen wax moo di sama ñeenti bant yi nga xam ne daal am nañ ko nañ ma leen toppatool jamono ji nag ne mes na menteñ kenn xamul dañu koo sàcc kenn xamul fan la nekk ci réewum Sénégal tëj